arbitre baa ngi noonu di leen waaj waxaat ñoom ñaari mbëri ndaysaan arbitre bi sifle waat na ndaysaan Bou Siteu Laurent ñoom ñaar ku ci nekk dem na ardo ba ñëwaat ñoom ñaar ku ci nekk combat bi joxe nga li war a joxe premier temps jeex na ndaysaan ñuy delluwaat ci deuxième temps xool ñoom ñaari xale fu ñuy mujj Bou Siteu moo la féetee càmmoñ Laurent Ndiago moo la féetee ndijoor kii jugee jàmm kii jugee waay ndeysaan ñoom ñaar xale yi ku ci nekk wax na ci combat bi waaye la wax ñoom ñu ngi xaaraat lan la ñu jël bi Laurent jël na tànk bi bu rëcc na bu rëcc na Laurent jël na tànk bi Bou Siteu rëcc Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent mu ngi dóor ci suuf dóor Laurent moytul Bou ngi dóor Laurent Ndiago Bou Siteu Laurent jàpp na Laurent rocc na loxo bi bëgg a dóor boo ngi dóor ci suuf boo ngi dóoraat Laurent ma ngay fayu Laurent ngay fayu Bou Siteu Bou Siteu Laurent Ndiago combat bi fu muy mujj ci ñoom ñaari xale yi fayu na Laurent siggi na Laurent siggi Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent Bou Siteu stade bi ngi ne tekk rek supporters yi nee nañ tekk rek eh Laurent Ndiago Laurent Ndiago eh, bu metti waay jaxabal na daan na Laurent Ndiago daan na Bou Siteu Laurent daan na ko jël bu rëy eh Laurent caxabal na ko daan ko jël bu rëy waay eh Laurent dugg si na Laurent caxabal na ko caxabal bu rëy Laurent caxabal na ko caxabal bu rëy ndaysaan oh ndaysaan ndaysaan Laurent sportif la sukk na ndeysaan bëriyee na waa lii lan la eh! xoolal Lora wil ma njaabli Lora kaay Lora kaay Lora